aywa ñu ànd mankañ mankañ la banjaki euh, bampuki banjaki le ndey c'est les mankañ <laughs> ulef ulef mais boobu aussi est-ce que euh, njaago bi ñu nuyoo ils ont des similitudes ah, linguistiques et aussi ulef euh, non ulef ayis la réponse la différence ça se trouve au niveau de la réponse ulef ayis mm. mais nous on dit ulef au job au job Pierre bi nekk si. salut à tous les mancagne voilà. du Sénégal <laughs> une amie mancagne elle mhm. s'appelle Angèle Ndeye euh, maa ngi koy bu baax e voilà communauté mancagne bi nekk fii si Sénégal ay aywa Chérif euh, euh, Jean nag xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllum communication. spécialiste comme la. ñu fas yéene euh, taxaw ci euh, li nga xam ne moom mooy actualité bi ci soxal mbir moomu la. waaw ñu ngi ko tuddee titre bi communication une impréparation li nemeeku nag mooy kilifa yu bees yi nga xamante ni ñoo nekk ci nguur gi am na ci ay ministre yu yëkkati ay kàddu yoo xamante ni jur na fi polémique bari na trop bi ci mujj gis nga ko ministre de l'éducation nationale li mu waxoon ci correction ba yi ba jàngalekat yi ñu ngi koy ñaawlu boo jëlee aussi le premier ministre a sorti sur l'homosexualité également. gis nañ critique yoo xamante ni am na ci ñu am aussi ci ministère de la justice fuite document bi nga xamante ni génn na jëm ci ñi war a participer ci euh, dialogue bi ba ci Cheikh Omar Diagne mi dénk wàllu matériel ca pale ba sorti bi mu def ne dana war a tabax juma. ca pale ba gis nañ également la même chose muy coow li euh, lu waral yenn saa yi yu ni mel dañ ko euh, communication ñi koy def dañ war a am fu nu war a jaar surtout bu fekkente ni da nga jiite mbooloo wala. effectivement la communication c'est un c'est un art c'est une et communication rien que le mo c'est un mot qui désigne en fait la, la euh, le mise en la mise en commun le, le partage en tant que tel voilà et voilà booy communiquer euh, maanaam booy wax ak keneen de c'est un processus et ce processus ne se limite pas seulement si kaddu ni mhm. ay wax baat bi may génn maa ngi wax ni yéen a ngi gis sama loxo mu ngi bouger mhm. maa ngi xool maa ngi respire donc c'est un processus et ce processus ça doit caler dans ce qu'on appelle le contexte. Mm-hmm. maanaam nit léppam day wax. léppam day wax donc euh, et il y a aussi la posture parce que li ñu gis ni mooy posture bi day changer c'est les mêmes individus qui avaient le même ton qui avaient les, les qui ont pu, séduire en fait l'audimat mm-hmm. et ce qui a changé c'est quoi c'est que ñu nekkoon position opposition ils ont ils ont réussi à créer une image. et cette image ne valent pas ne ne n'est pas identique ak image bi ñu yor léegi. Mhm. c'est une communication de pouvoir communication. d'état genre dafa mel ni français ngay làkk. communication état la yow da nga wala waxtaan ak ñi nga xamante ni faluñu la. Mhm. ak ñi nga xamante ni xëy na ñeneen. Euh, dañ leen ber dañ leen bañ maanaam affaire d'homosexualité c'est un sujet qui bi nga xamante ni il est il est tellement complexe et ce genre de débat il faut des stratégies d'absorption dans le cadre de la communication mm-hmm. et le le Premier ministre pour le citer euh, lors de la conférence mm-hmm. moom dafa réussir dans son discours dans son speech et dans sa communication mm-hmm. mais fi xaw a échoué mooy fi mu waxee ñaari baat maanaam dañ ko toléré fii te boo xoolee loolu c'est vers la fin te loolu dafa mel ni dafa génn ci discours bi nga xam ne moom lañ ko bindal après di wax waxu boppam ci moment boobu xëy na ci la def glissement boobu te pourtant le discours était tellement cohérent, cohérent. Et, et, et, et il y a des mots très forts le l'homosexualité mm -hmm. mais ci fin bi ba muy wax génn discours bi dafa mel ni foofu la xaw a déraper. foofu la xaw a déraper parce que c'est l'élément mooy élément bi nga xamante ni moom ma gën a frappé si discours am. Mhm. vers la fin il s'est rendu compte quelque part li mu wax ak li mu fogee ni que nit ñi mën nañ ko comprendre comme ni mu ko bëggee il s'est rendu compte que mhm. parce que euh, il a fallu qu'il il rectifie et on a vu que son invité aussi n'a pas voulu en fait baisser les bras. On a vu le ping-pong. Et là, ce n'est plus un discours prononcé, mmh. mais c'est un discours qui est dit. Et improvisé aussi. Et improvisé. Donc, ce, les erreurs ici qu'on peut noter, c'est l'impréparation. Et l'impréparation, ça empiète, des empiètements, c'est la clarté et la transparence. Et dans le, dans le domaine, domaine politique, on a besoin de ces deux éléments pour mener établir une certaine confiance si ñi nga xamante ni mooy le peuple et le public c'est pas ce que nous disons la nit ñi di comprendre nit ñi dinañu comprendre à plusieurs facettes ñii dañ lay xool pour établir li ñuy wax en communication la règle des trois mmh. on est perçu vu avant d'être compris surtout les deux étapes là euh, dañ ci war a di bàyyi xel man su may wax nit ñi il faut ñu xool ma ñii dañuy xool li ma sol dañuy xool l'arrière-plan mhm. ñii dañuy déglu si man li li may wax mhm. donc être vu être euh, avant d'être compris dans ce dans dans ce dans volet mhm. euh, les les les les les gouvernants les gouvernants ils étaient dans le feu de l'action parce que li ñu promettoon il fallait que moom ñu continuer à maintenir ce lien mais sauf que gouvernement c'est un appareil où il faut une certaine forme de communication. mu am coordination déjà ci communication mu am voilà mu am coordination parce que euh, l'état l'état est bien organisé. ils ont un porte-parole déjà ils ont des experts en communication. parce que communication c'est une entreprise c'est un processus. kiy wax maanaam drapeau la mais derrière le drapeau nous avons. le Sénégal nous avons tout nous avons tout mais kii wax moom de dafa war a suivre les instructions yi nga xamante ni c'est son staff de com moo moo ko ko wax mais il arriver des moments ou des événements parce que dans événements yi du ñu tàggu mën na jékki-jékki ñëw donc ça peut aussi induire à certains hommes politiques mm-hmm. ñoom ñu dem wax pour en fait exister on peut en, on peut citer des exemples euh, yi nga xamante ni euh, euh, si e, dañ dañ leen énumérer comme euh, le sponsor si wàllu sport baccalauréat bi nga xamante ni c'est du un peu grave parce que quand on on on, le résume c'est deux mots qui sont d'une connotation très négative donc ça remet en cause en fait ñi nga xamante ni yor nañu loolu te foofu la ñu jaar c'est le justement euh, genre, genre euh, euh, communication koo xamee ni euh, dafa yor poste de responsabilité étatique ak koo xamee ni yoru ko euh, du du benn si yow par exemple comme suñu jëlee l'exemple du ministre de l'éducation ak erreur bi mu def erreur de communication ci baccalauréat bi moom te pourtant c'est un homme du sérail boo xam secteur bi boo xam ne muy wax parce que ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ ne kii est Guirassy mais comment se fait-il que mu def glissement boobu Guirassy l'homme politique qui vient parler euh, ci sujet boo xamee ne après ça créer la polémique ba sax tax moom mu delloo si waat di repréciser sa pensée voilà la reprécision moo gën a am importance mais sauf que l'auditeur mm-hmm. moom son rôle il n'est pas c'est quelqu'un qui est passif moom du bëgg lu muy réfléchir pour penser à ta place day jël li nga xamante ni lii la ko buggee jëm ko méngale ak kiy wax ak moom li mu nekk di wax c'est ce qui s'est passé parce que moom euh, certainement mhm. il n'a pas voulu dire li euh, mu waxee loterie ainsi de suite de bac correction baccalauréat son intention n'était pas comme nit ñi ni ko jëloon ni ko jëlee après son discours Et l'exemple aussi, euh, pour, pour, pour, euh, illustrer, nous avons eu euh, un, un chef d'État qui a tenu un discours ici, un discours brillant, mais les gens ont retenu quelque chose une petite chose bi nga xamante ni bi mu defoon ci ci vestam moom mooy discours c'est l'analogique et donc le le le, le, le ministre de l'éducation c'est mm-hmm. Et comme tu l'as dit, c'est un expert. C'est son domaine. Ben, le gouvernement et le contexte qui a euh, euh, le contexte dans lequel il a prononcé le discours n'était découloon contexte bi nga xamante dina ko permettre moo mu mën ajuster sa communication et cela on a vu des conséquences yi nga xamante ne jur na ko bon va être un peu compliqué parce que dina tàkk pour mu réparer loolu day métti il il faut mais justement kon euh, communicant xaw les euh, experts en communication mm est-ce que newul seen njëriñ fi lay gën a feeñee parce que secteur loo ko xam-xam-xam mhm. comme ni ñu ko waxee grâce kenn du xamul mbirum euh, éducation mhm. loo ko xam-xam-xam quand même tu as besoin des mhm. spécialistes en communication pour t'aider à bien communiquer euh, devant le grand public. D'où l'importance des cellules de communication dans les différentes euh, euh dans sphères les donc waaye kenn ku ci nekk. Mm. da nga am conseil en communication te le conseil en communication travaille avec les conseillers techniques. ba ñu peaufiner discours bi jox la ko. nga liir ko boo ci amee ay amendement wala ay correctif nga def ko mais boo ñëwee bul génn discours c'est l'improvisation en fait dafa mel ni moom mooy danger bi daal. surtout l'improvisation et, et, euh, et on oublie un, un phénomène bi nga xamante ni c'est très important euh, on a un nouveau gouvernement mm-hmm. et pour ne pas encore rappeler faire venir le, le passé ñoom ils ont eu à communiquer pour exister et on n'a pas on est on yeggagu yeggaguñu les 100 jours yi nga xamante ni moom la ñu war a may donc l'instinct boobu day ñëwaat day ñëw. comme maanaam opposant bi ñu nekkoon discours populiste bi ak nga nekk homme d'état posture bi nga war a am transition boobu moo xaw a jafe dafa mel ni. moo xaw a jafe mais dina dina deñ au fur et à mesure parce que nañ ko xool mhm. ci premier discours de, de son excellence euh, le président Bassirou Diomaye. Mm-hmm. les deux les discours qui ont suivi on a vu que. Euh, la cellule de com. a, beaucoup, a fait son travail et on a vu les résultats parce que la communication c'est pas seulement le fait de parler comme ni mu ko waxee c'est un processus c'est un processus et aussi les cellules de com ñoom gis nañu ils ont ñoom dinañu lire dinañu def seen seen critique pour mën a en fait améliorer améliorer mmh. cette communication parce que c'est l'image de de l'appareil et cette image si c'est écorné la confiance auprès des des électeurs auprès des citoyens loolu dina dina jafe te ñoom seen projet bi il risque de ne même pas réussir à à pouvoir euh, exécuter li li ñu bëgg. il faut ñu am par exemple une petite formation sax ñoom moom ministre bi walla homme d'État bi war na am une petite formation ci wàllu communication parce que comme ni nga ko waxee y a pas que euh, wax ni rek. yàlla a le gestuel. y regard. il y a l'intonation loolu yëpp daf ciy jouer donc loolu liggéey la parce que ñun tooguñu toog nii rek mën a mën a wax dafa lu nga xam ne da nga koy jàng effectivement effectivement effectivement euh, la communication comme il a un euh, benn élément bi nga xamante ni dañ dañ ko faral di wax man su may wax nii euh, à cent pour cent xam naa li may bëgg a wax mhm. mais de pertes dix pour cent dix pour cent dix pour cent ba yéen da di comprendre man li ma li li ma bëgg a yéen ngeen ngeen comprendre à dans la à 100 pour cent c'est 10 pour cent seulement de ce que moi j'ai dit et les autres yéen da ngeen vous allez chercher à le combler dans l'analogique bu fekkente ni c'est de de vis-à-vis et bu fekkonte ni comme ni may waxee ni ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan ñi nga ñu ngi déglu ils vont essayer di def image pour mën a xam à travers mon intonation su fekkonte ni man li may wax sama baat dafa xaw a dëgër ñoom dañ mm-hmm. dañu may caricaturer comme quelqu'un qui est ceci mm-hmm. et cela c'est la euh, ça va c'est la même chose si li nga xamante ni kaddu yi ñu yi ñu gis mm-hmm. ce sont il y a des mots yi nga xamante ni euh, quelquefois il est on est de trouver des mots qui vont absorber c'est-à-dire maanaam da ngay jël kii bi utile mbow su ma nu ma ko mën a waxee jël mbubu bi muur yeneen yeneen expression yi yeneen mots yi nga xamante ni sont dre sont directs pour exprimer en fait un contexte ou bien euh, un système mhm. d' accord am na solo merci beaucoup Jean Bagnaki euh, mu nekk nag spécialiste communication euh, ñu àndoon ak moom ci chronique gu euh, bi ñu fàttali très rapidement l' intitulé nag ngi woon comme une impréparation loolu moo nekkoon l'intitulé de notre jàngat du jour invité bi ñëw na moom it euh, mu yëngatu ci wàllu communication euh, Amadou Diaw lay wuyoo léegi léegi ñu dalal ko.